ci Touba jànnatu bu nuy wër jigéen ñu jàmbaax lool mën nañoo jàpp soxna Mame Faty Lo mi ak ñi mu àndal moom mu jiite unité de transformation bii di Sopparni lu jëm ci wàllum céréales locales yi soxna Mame Faty Lo nekk ci góogale liggéey soxna Mame Faty Lo Diaw donte yoon wi mëtoon na lool waaye tey jile nag dem na ba góogale liggéey ràññeeku ci lool ndax liggéey bu sell bi nga xam ne mi ngi koy amal ca góogale fànn. yëngu ci wàllu transformation ñuy defar cere defar araw di defar caagri bañ ci dalee yëngu nag xaw naa amu biir xaw naa yàgg lool waaye boobu ba léegi tamit gisuñu kenn koo xam ne war nañ cee mën a jàppale dimbali nu accompagner ñu. Faat Lo mii jàmbaar la joo xam ne ku ko jàppale jàppale jàmbaar ndax ba muy doog a commencé metti woon na lool ay buuni la daan def pepp luy ay saret di ko soqali ji bu ñëwee ñu toog ci kër gi sebeti luy waat ay saret ñu wallu ji ko di dem ci mbaarum seng la njëkke woon. heure bi ku ku ku jàppale. ba nga xam ne si nii jënd nañ loo xam ne suñu liggéey du taxaw danañ ci danañ ko gis bu baax a baax ku ne jàppale it ci wàllu uh, li ñu koy liggéeyee ak leen koy liggéeyee ndax maanaam liggéey bi yett la maanaam place bi ak matériel bi ak li nga xam ne moom nga koy jënd ji waaye bu noppee tam ak fi nga koy jaaye ji ndax fi nga koy jaaye ji tam war ngaa mën a am kayit bu la jàppale bu baax gunge la ak beneen beneen kii boo xam ne si nii soo defaree ba pare dina ci jàpp ngir mu mën a dem ngir mu mën caa jàpp mu mën a jar noonu nag nuy dooleel sant bu baax euh, di di tàllal loxo ñëpp nag. nga transformé moom du taxaw dañuy daal di am ay clients yoo xam dañ koy jënd léeg-léeg tamit njaay moom dina xam am gàllankoor waaye ba amee gàllankoor tamit duñ mën a bàyyi ndax li tax duñ mën a bàyyi mooy dafa am ñu topp ci suñ ginnaaw te ñoom ñëpp ñii da ci am lu ñu xamante ne ni fii lañ koy mën a jëlee pour yóbbul ko njaboot ga kon suñu amoon suñ sañoon mën a jàppale dooleel nu accompagner ñu ba ñoom ñu mën leen a jàppale ba waa Jantu yëpp daal mën a gis seen bopp ci liggéey bi. liggéey boobee muy amal ràññeeku ci lool dem na ba law ba nekk njëriñu askan wi rawatina nag ñi nga xam ne ñooy yewoo bile ci Touba Jannatu ak li ko wër lu ëpp fanweer ak juróom ci ay nit ñoo xam ne ña ngi fay liggéeyee ña ci ëpp di ay jigéen jamono jii ña ngay gis seen bopp ci entreprise boobu ñoom soxna yooyu sax ñoo ko seddeel seen bopp. sant soxna Mame ndax yàgg nañ lool ci ci ci béréb bii. te mosuñoo am ci moom lu ñu naqari heure bu xëyee liñ bàyyi ci moom bu ëllëgee moom la ñu fekk ci moom di sant waa kër gee gone yëpp nag di sant ñëpp. maa ngi koy sant di ko gërëm ndax maam Faati Lo ndax xeebuma yëbuma ñi fi nekkit noonu di sant baa yow mii yàlla boole ñu lépp mooy suñ càmmiñ yoo xamante ne bañaluñu dara moo gën ci ñun di sant waa unité bi yëpp tamit te di ñaan yàlla ñu yokk jëm ca kanam unité bi nag dem na ba nga xam ne mi ngi bëgg xat te ñi nga xam ne ñi la boot fii li muy bari bari ñi nga xam ne ñoo ko tàllal loxo te jëlagu leen moo ëpp ndaj moo ëpp ñi kon nag ñoo koy sant bu baax di koy euh, gërëm ndaxte mag la joo xam ne ju neex a àndal la xeebuñu yëbuñu béruñu ñooy bokk lekk buñ xëyee fii ñooy bokk ndékki ñooy bokk añ fii ñooy bokk naan kafe ngoon doo ko ti saaroo soxna maam Faati nag jigéen la joo xam jàmbaar la jàmbaar la joo xam ne si nag jàmbaaram foo ko takk wees na ko bugg daray góor jàmbaar la day dem kon bu buñ sañoon ñu jàppale ko fii comme ni ko soxna Xadi loo waxee rek fii nii lay def bu dikkee moom nu nay ànd suba ba ca ngoon du kook ñun benn yoon su ko neexoon day nekk fee ci biir biir terrasse am bee bàyyi nu fii nu liggéey mu di nu yónnee ay ndaw waaye heure bu nu solee suñu tëni ñëw ci ci unité bi sol na tëniam ñëw ci unité bi nu nag moom ba keroog nuy wàcc kon noo ngi koy ñaanal suñu borom dimbali ko. Moustapha Cissé Al Karim bokk ci ñi nga xam ne ñooy gunge yile soxna ci goog léeg liggéey di kat ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne am nañ ko te ci jariñ seen réew. ki nga xamee mooy soxna maam loo Diaw nekk fii ci Touba Jannatul Mahwa entreprise la boo xamante ni wax fa dëgg yàlla am euh, li ñu naan tunguñu lu teew ñuy nataal ñu xoolee li ñu fi fekk tey muy ay jigéen yoo xam ne dañ fiy liggéey mu mat fanweeri jigéen ak juróom wax nañ ñu ngeen dégg gis ngeen nit matériel yi nga xam ne moom ngeen fi fekk matière première bi gis ngeen ko kon kooku jigéen la joo xamante ni ñun ànd suqali suñu entreprise ñun ñëpp àndandoo nañ ngir xam ne exemple la moo tax ñu wane ko xamal ñi nga xamante ñooy suñuy partenaire ne leen soxla nañ ab liggéey kon dañuy sàkku ci gouvernement bu Sénégal mu jàppale jigéen ñi ñu xam ne am na ñu ñuy dégg ñoo xamante ni ñu ci bëree bëri lanu yor dañ koy politiser waaye ñii ay actrice de développement lañ ay nit lañ ñoo xam ne askan wi ñoo leen yor lin yor dañ koy jël ñu dugalaat ko ci biir askan wi ndax ñun gis nañ ne transformation nekk na mbir moo xamante ni buñ ko jëloon Sénégal mën na cee développé baykat bi gis ci boppam producteur bi gis ci boppam commerçant bi gis ci boppam kon loolu créer d'emploi la création d'emploi la parce que ku ñëw ci unité bu mel nii ñu ne la cinq personne danañ fi xëy ci loo xamante ni amul appui de l'État pexey boppam moo ko waral kon jooju jigéen mat naa jàppale kon ànd suqali suñu entreprise ñi ngi tàllal loxo gouvernement bu Sénégal ñi ngi tàllal loxo partenaires yi ñu jàppale leen parce que jigéen ñi jàmbaar lañ waaye nag ay moyens lañ manqué liggéey boobu sax dem na ba ràññeeku lool waa ma nekk agence de développement et de l'encadrement des petites et moyennes entreprises liggéey boobule yëkkati leen ngir ñu ñëw ngir gisal ko seen bopp bokk na ca booba lépp délégation ADPME Jean-Marie Diouf madame Diallo Ayoba Cissé mbégte dëgg daal la nu am ci soxna yi nga xam ne jàmbaar dëgg lañu ak liggéey bi ñuy amal ngir suqali seeni gox gën leen a ñaax itam ci seen taxawaay googal ak nemmeeku di visite bi ànd suqali sunu entreprise te présidente ba di Aïda Touré ak GIE waa kër Serigne Saliou Mbacké présidente ba di Mame jaw Diaw GIE Sofam présidente ba di Soxna Ndeye Marème Mbacké ñoom soxna yi la nag ak liggéey bi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy amal ci dëkk bu sell bi di Touba te yëngu ko ci wàllu ko développement bokk na ci itam li ñuy sax ci wàllu wàllum formation di wàllu tàggat waaye itam di tàllal loxo kilifa yi ngir ñu gën leen a jàppale ci bërëb yi ñuy liggéeyee ak i jumtukaay